ñooñu dañuy tànn di leen invité fii ci Sénégo tey nag dañu ñëw seet si Imam Kanté balaa ñu dugg rek ci présentation yi ñu bàyyi ko mu nuyoog internet yi Imam ñu ngi leen nuyu Sénégo TV ak Kawtef. alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah maa ngi nuyu waa Sénégo équipe bi yëpp euh, particulièrement yéen ñi fi ñëw yow miy posé question yi ak sa caméraman sinon Sénégo moom miin naan leen miin nañ ma danaay ñëw léeg ci seen. studio bi léeg-léeg itam équipe bi ñëw fi kon saa su ne may sawar ni ma koy defee ak médias yi en général wax ne ay partenaires lañ euh, di répondre seen euh, question euh, day am solo parce que day permettre opinion bi sax am matière à discussion donc c'est très important jarul ragal en même temps aussi yaakaaruma ni que lu ma wax rek day nekk loo xam ni ñëpp dañ naan forcément d'accord nañ ci mais li am solo mooy ma jéem ko indil ay tegtal jéem ko présenter ci façon boo xam ne dinañ xam ne lii tegu na ci lu ñu mën a waxtaanee loolu moo a ci gën a amal euh, solo mais en même temps aussi exercer sama droit ci contribuer ci débat yi am ci ci réew mi mais ci l'islam ci àdduna bi aussi donc di leen nuyu yéen ñëpp di leen sargal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp euh, Sénégal et en particulier di topp euh, émission bi am na solo imam ma fàttali rek imam Kanté écrivain la conférencier la expert la aussi en environnement et en économie solidaire imam Kanté moom tamit génnee na livre boo xam ne am na vingt 26 test texte yoo xam ne def na ko ci boobu boobule livre ba tey it ci imam Kanté mu ngi commencé di bind di délivrer aussi ay serment yoo xam ne euh, ci atum 1986 la ko commencé kon tey euh, imam Kanté dafay baax buñ koy dalal rek ñu dellu en arrière wax li nga xam ne mooy euh, buñ buñ ko jàppee sa cursus waaye background bi nga xam ne moom lay waxee ak aussi benn niveau bi ba tey niveau boobu ak background bi moo koy permettre yenn post yi nga xam ne da koy def sur Facebook da koy assumer euh, première partie bi imam dañuy wax rek ci post yooyu ñu dugg ci actualité dominante ndaxte gis nañ mbirum confrontation avorté buñ ko mënee jàpp entre ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak Adji Sarr gis nañ aussi kaawu Pape Alé Niang entre autres mais bu ñu gisee imam Kanté lendemain confrontation Adji Sarr ak Ousmane Sonko mu ñëw def postu ba tey ci poste boobu am na ay polémique ndax am nañu ci d'accord am na ñu ci d'accordul est-ce que mun nga ñoo revenir ci contenu poste bi puisque yow yaa ko bind waaw euh, yaakaar naa ni lu jara def poste la pour koo xam ni tàmm nga di bind euh, lu mel nii boo ci bindul day mel ne kon bind nga ci ko gën a ñàkk solo Euh, gën ko ñàkk présenter euh, risque euh, d'embrasement ci réew mi que lu mel nii donc wax dëgg yàlla yaakaar naa doon na jaadu ma wax ci dara wax ci li ma xalaat parce que wax naa ci yoo xam ni c'est moins compliqué et c'est moins dangereux même pour la stabilité du pays parce que bu ñu fàtte ne lii au moins je pense amoon na dix morts d'ailleurs ngeen baal ma sax ma profité waxaale ko ci daf may jaaxal ma gis ay nit quel que soit ñu mën a doona ah, muy ci langue politique bi muy ci Euh, même ci société civile bi ak yeneen nit individuellement ñu ñuy reetaane maanaam ñu ñu ñu ñu ñuy foowee ak di reetaanee mbir mi parce que bu ñu fàtte am na fukki xale yu ci faatu au moins euh, seen njaboot a leen di jooy ba fi mu toll nii nga gis nit kuy reetaan di wax euh, aji Sarr ni mu soloog di wax ne Sonko ba mu fay dem ak tàggu woo jabaram ak nangam nangam di xàqataay man de loolu lu ma jaaxal la parce que ay bakkan rot nañ ci kon du lu woyof te yàlla rek a xam ëllëg it bu juge bi joxee décision lu mën a jur. Euh, kon yaakaar naa ne lu sérieux la je ne pense pas que ci histoire politique gu Sénégal mës nañ am problème bu gën a compliqué nii amoon nañ ay mort ak yooyu mais en général c'était je crois que c'était moins complexe euh, ku jóg bëgg a politique euh, ñu faat la wala say nit dem manifester ñu gaañ leen ñenn ñi faatu foog naa yooyu moom lañ fi gënoon a miin mais lu mel ni xale yi génn et cetera et cetera complot la dañoo bëgg a jàpp adversaire politique éliminer ko nangam ak nangam kon foog naa war nañ ci mën a wax. lépp luy tax rek réew mi mën a réew mi mën a dal euh, c'est important d'ailleurs wax boobu dama koy jëlee sax ci ci ci Adji Sarr bi muy wax naan euh, su ma xamoon ni mën na jur lu mel ni kon dina ma jaral sax ma bañ a porter plainte donte woon sax man jàpp naa ni dañ ma tooñ euh, loolu comme quand même prise de conscience boobu c'est important bu ko defee confrontation bi maag ñëpp a ci yem mooy finalement liñ ci wax yëpp ak liñ mujjee am daanaka avancé dara ci dossier bi apparemment Euh, puisque bañ a tontu moom euh, du permettre foog naa juge bi mu mën a am ay éléments yu muy mën a basé wu daal ne bon euh, parce que quoi qu'on dise lu mel nii conviction juge bi finalement mooy joué waaw mooy joué parce que amul ay éléments ci li ma ci gis amul lu dul am lu ñu nëbb xam maa ngi dégg na ay nit naan waa am na am na élément yoo xam ni juge bi rek ko ko yor nangam ak nangam ah bu dee loolu la aussi li ma xam daal mooy que avocat yi nga xam ni ñooy défendre aji Sarr yaakaar naa lépp loo xam ni ñoom am nañ ko te mun ko wax ci opinion bi pour wane ni euh, Sonko dafa def liñ ko tuumaal foog naa ñu ngi koy wax wala boog naan danañ ko wax danañ ko def yore nañ lii yore nañ lii ah ci liñ ci gisagum ça fait presque deux ans gisaguñ fi dara loo xam ni man ci sama analyse bopp mën naa wax ne lu ne këtt ne jon leer nañ loo xam ni euh, day day wane day accablé day wane carrément que ni Sonko lii ñu ko tuumaal maanaam viol euh, am na gisaguma ko. te pourtant ça fait deux ans ay avocats am yor nañu lii danañ ko génne danañ nangam dañu nangam ba ci confrontation bi je me disais enfin enfin ñu teg sur la table nag lépp loo xam ni surtout nag ñi accusé parce que ñoo war a génne preuve ñi accusé ñu génne preuve ñu teg sur la table lépp nag luy permettre juge bi ak l'opinion publique ñu mën a wax ne kon affaire bi nag nii la demee mais gis nga tamit confrontation bi nu mu euh, mujjee moo tax man ma defee sam li ma wax rek mooy que comme loi bi may na nit ki ñu laaj la nga bañ tontu. Sonko jëfandikoo na loolu bañ a tontu Adji Sarr tam jëfandikoo na bañ a tontu euh, avocat yi donte woon nee nañ tontu na juge bi ak procureur bi Sonko il paraît ñu ne tontuwul procureur bi ak juge bi tontuwul euh, avocat yi ala kulli lu ko loi bi may la mais je me dis toujours man li gën a intéressant pour man mooy que ki accusé moom moo war a fexe convaincre juge bi ak opinion bi euh, que ni lii ma ko tuumaal am na parce que tegtal yaa ngi nii lii ak lii ak lii ak lii moo ko wane maak ngi ñëpp ci yam li ma ci gis mooy PV boobu ñuy wax di circuler ak certificat médical bi te PV boobu ak certificat médical bi doyul preuve déedéet parce que certificat médical bi tuddul sax terme viol et d'ailleurs maître El ci boppam je le prends au mot moom ci boppam toog na le lendemain plateau ak Pape Ngagne di wax ne médecin bi sañul qualifier acte de viol moom dafay wax techniquement que ni lii ak lii am na juge bi rek moo sañ a wax kon certificat médical ni ko ñenn ñi di waxee du preuve pour wax viol médecin bi sañul wax ne viol dafa am kon même test ADN boobu ñuy wax yëpp noonu du prouver viol léegi mën na prouver ni euh, ndoxu ko góor ki jaxasoo na ak ndoxu ko jigéen ki wala yaramam ak yaramu ko jigéen ki laalante nañ et cetera loolu yëpp mën na mën na ko prouver mais ci yan condition la amee est-ce que dañoo forcer ko jigéen ki ba ba tax loolu am wala déet euh, euh, test ADN mënu ko prouver kooku boo tappee léegi ci google bi nga xool nga tàppee léegi test ADN comme man ni ma ko defee nga def sa recherche nga def test ADN viol tàppee ko nga xool da wax ni test ADN mënu ko prouver mën na nekk na un élément d'appui ci yeneen élément yuy wane ni kon peut-être loolu am na kon euh, PV bi lan moo ci am ay contradiction euh, PV du du preuve bi ma bindee poste bi gis naa ci ñi nga xam ne dañu féeteeg pouvoir bi ñu may euh, ñu may ñu ñuy polémique ak man mais ça m'intéresse ba ko de au contraire daf j'apprends parce que ñi nekk ci pouvoir bi gis naa ci ñuy def kii ni wax ne wéy lan nga bëgg PV bi preuve la ak certificat médical non non PV bi ak certificat médical bu doon preuve la kon fi mu nekk nii wax wax bi farankulaay na kon juge bi du soxla sax confrontation du soxla waat di déglu encore le capitaine Touré euh, semaine prochaine kon sur le champ danaan j'ai suffisamment d'éléments euh, mi ngi noonu kon ba procès verbal bi ñuy wax lan moo ci am ay contradiction maanaam euh, Adji Sarr léeg mu wax loo xam ne day weddante ba pare waxoon nañ ci affaire ëmb ak koo xam ne daf la violé cinq fois une fois nga bàyyi deux fois nga bàyyi trois fois nga bàyyi quatre fois nga bàyyi hmm, doy na waar cinquième fois bi ci boppam sax waxoo ni daf ma violé da nga ni euh, nañ ma bàyyi moom ci néeg bi yuuxuwoo gàjjoo ko dawoo génn bi nga génnee sax danga jël xaalis bi euh, sedd ci euh, soxna si bi ngeen demee nga ne ko naa la jox cinquante mille et cetera mu mel ni xaw na doy waar léegi bi nga waxee loolu tamit am na ay wax yoo xam ne weddante na ci déclaration yi plus du moom rek ñeneen ñi nekk ak moom ci euh, salon de massage bi ñoom tam wax nañ loo xam ne weddante ne ak moom li mu wax kon juge bi du ne rek Adji Sarr wax na rek dëgg la kon kon ñii wax naan PV preuve xanaa xamuñu lu xew PV c'est un recueil ay constat léegi nag bi ko def policier bi ak ñeneen ñëpp ni dañuy def constaté nañ lii ah kii de lii la déclaré kii de lii la déclaré kii lii la déclaré kii lii déclaration bii ñun gis nañ ne am na problème parce que amul cohérence parce que mënoo wax ne 8 heures maa ngi woon marché te fekk 9 euh, Euh, fekk huit heures ñu ngi yaa ngi woon sa kër ñoom yu mel noonu la def mais du tax ba tey ñu nen non comme nee na huit heures mi ngi woon marché ça veut dire que dañ ko violé parce que ki mu wax ne da ko violé mi ngi woon marché huit loolu dama joxe benn exemple donc boo xoolee éléments yi ñu fi amagum loolu laa fi gis man temps yi la nag ma déggoon naan avocat yi ñu ne am nañu ay vidéo sax nangam ak yoo xam ne bu ko tegee affaire bi leer ba ci maître El bi ma dégg mu ko yor confrontation bi jot ma dégg ko mu génnaat di wax ne jotagul ñu génne preuve yi ma ne kon preuve yi kañ lañ koy génne nag kañ lañ koy génne amee mais kan moo wax ne procès dina am parce que parce que juge bi mën na wax nii damay def non-lieu parce que aw ma assez d'éléments pour yóbbu ko procès wala parquet bi ci boppam ne damay arrêté poursuite yi kon pour wax ne damay denk samay preuve procès ba kan moo la amal garantie que di nga am procès kon loolu risque la aussi donc je me dis que peut-être wax nii rek mais mënuñ jël risque yore ay preuve ba pare naan xaar procès te procès bi du ñoom ñoo koy décider moo tax gis nga Adji Sarr wax na ni procès laa bëgg su ko neexee mais bëgg procès taxul nga am procès Euh, ko tamit su ko neexee ne nañ def non-lieu mais c'est au juge finalement de voir confrontation bi tam juge bi dina xam d'après noppi yeek ñàkk noppi yeeg tontu yeeg yëpp ni dana wax ne à partir de ça lii mooy sama conviction ci euh, dossier bi mais sama conviction personnelle man mooy que pour acte de bi gisaguma lu leer nañ lu ne këtt jon loo xam ni kenn mënu ko teggi luy wane ni euh, li ñu tuumaal ko noonu la demee. ba tey ci preuve boobu sax parce que bu ñu jàppee en droit la charge de la preuve incombe au demandeur kon ñu ngi doon xaar partie bi nga xam ne moom moo accusé mu indi li nga xam ne mooy preuve am naam loolu amul mais aussi bu ñu xoolee après confrontation bi gis nañ deux camps yi ku ci nekk sa déclaration gis nañ Ousmane Sonko génn wax Adji Sarr moom tamit génn wax di wax waxu procès tey procès bi su amul ak aussi kaawu Adji Sarr Ousmane Sonko ci dëkk bi ak aussi yeneen yi nga xam ne tey aji Sarr bu amul gain de cause wala non lieu am est-ce que du am impact ci fii yi nga xam ne ñoom violé nañ leen wante du ñu nangoo wax parce que dañu naan ne aji Sarr a ngi fi woon après amul suite conséquence yi est-ce que ñi ngi koy mesurer ci deux camps yëpp ak dëkk bi aussi stabilité bi. Euh, non écoute euh, conséquences yi yàlla rek a xam nu mën a demee mais àdduna mooy doxee noonu. Euh, Sénégal tam ay jinne nekkuñ fi ay malaaka nekk fi ay nit fi nekk Euh, adduna day dox adduna day dox ak ay épreuves ak ay phases yoo xam ni euh, bu tollee foofu ci réew euh, nit ñi dañ ciy waxtaan seet nuñ koy régler donc lii nii am Sénégal duguleet am na ci réew yëpp. Euh, boo fa demee danga fay fekk ay cas judiciaires yu compliqué yu mel nii am na France am na États-Unis ay ay procès yoo xam dañ ko def ba pare condamné nit nit ñi génn ne lii du dëgg jaarul yoon et cetera ñu def appel mujj ko euh, casser wala ñu maintenir ko et cetera et donc muy procès politique wala procès yu mel nii ci affaire mœurs ak yu mel noonu nekk ni mi ngi ne gàññ tey États-Unis euh, depuis MeToo boobu nangam nangam et cetera donc loolu ci àdduna la bokk Sénégal mënu ci nekk exception rawatina Sénégal république démocratique la kon. Euh, état de droit la aussi donte woon sax am na ñu koy jàmm mais quand même dans l' ensemble globalement je trouve que euh, état de droit la ak ay quelques faiblesses mais euh, quand même nit ku nekk am nga sañ-sañu dem ci yoon daal ne dañ maa tooñ comme ni ko Adji Sarr defee loolu moo tax musuma mun a d' accord ak ñi doon wax waaye jigéen bu baaxul la day jaay yaramam moo tax man même bu dee loolu sax am na droit même jigéen prostituée ngeen baal ma wax bi jaay yaramam sax amuloo droit violé ko am na droit dem ne man damay jaay sama yaram mais kii jaayuma ko sama yaram ba pare mu suif ma kon am na droit dem ne dañ maa tooñ li ci àtte mooy jigéen bu jàpp ne dañ laa siif nga dem ci yoon ne dañ maa siif ñu ne la indil say tegtal xam nga nit ñu lu ñuy jaawale foofu am na luy jaawale naan dañu war a màndu bu fekkee ni dañu ne nit dafa siif eh, jigéen dañu war a màndu ne loolu du dëgg et cetera foofu dañu jaawale foofu li fa eh, aaya bi di wax boo demee ci mooy ñoo xam ne dañu tuumaaloon sunu yaay Aïcha naa naafiq yi nekkoon Madina suñu yaay Aïcha dafa tardé woon ñu fàtte ko ci gannaaw ki nga xam ne nag yonent bi saa sallam chaque fois ba doon tukki dafay am ñu muy yónni ñu dem ci kanam pour xool ndax amul ay danger ay mala ak yu mel noonu doog a campé foofu suñ fa jógee tam day am ñu fay bàyyi ñu mujjee fa pour xool ndax nit ñi fàtte wuñ fa ay bagage wala amul ñu leen topp ci ginnaaw léegi nag kam fa bàyyi mu mujjee fa kooku moo ñëw gis ne su yaay Aïcha dañ ko fàtte ci tàntam kooku nag moo ko wax ne ah mu ne ko léegi yéegal si gëléem gi ma yóbbu la bi muy dugg seeg moom ci Madina naafiq yi ne nii ah saxaaba yonent moom kese ak jabar yonent bi nii am nañ lu ñu mën a wax ko rek ñu commencé ah gis ngeen foofu la tuuma boobu jógee alquran nag addu ci dal ne bépp jullit boo xam ne dégg nga loolu neel soxna Aysa de ku baax la lu baax lañ xam ci moom duggul ci lii kon loolu mooy pour ñi nga xam ni dañ doon tuumaalaate dégg nga di euh, yàq der te ay naa naafeq lañ woon loolu sa n'a rien à voir ak ki nga xam ni moom ci boppam dafa jàpp ne victime la dañ koo tooñ parce que sinon sinon sinon kon islam damay ragal ñu teg ñu ñu jàppee ko benn diine boo xam ni euh, xanaa ñi dof rek ñoo koy gëm maanaam est-ce que islam war na mën a nekk diine boo xam ni day tere jigéen mu dem jooy ne dañ maa siif kon jigéen daal lu ko mën a def ci wàllu siif warul wax dara est-ce que loolu logique na ama kon loolu logiqueul kon bëgg wax ne charia loolu la atte déedéet li ñuy wax mooy ku ci wax loo xamul loolu la ñuy wax dégg nga ak dégg ko rek tax nga ne kooku def na ko wala mën na koo def mais ki nga xam ni moom dafa jàpp ne dañ koo def dara muy viol muy leneen mën na ñëw ci yoon daal ne dañ ma siif wala dañoo jël sama alal extra ñu ni ko indil say tegtal bu tuddee ay nit ñu woo ñoo ñu laaj leen kon nag euh, loolu la li nga wax nag léegi euh, yow tamit euh, viol wax dëgg yàlla duguleet nii ci àdduna mi ci Sénégal boo demee léegi tribunal ay dossier viol ñu nga fa donc kaawu Adji Sarr bi xam nga lu tax mu nekk kaa bu gën a compliqué rek li ci politique dugg mais tous les jours moom boo demee tribunal léegi dem leen nga def recherche ñu dañ la tegal y a des centaines de cas foofu ay ay ay ay ay ay présumé viol yenn yi day mujj nekk dëgg yenn yi dañu di mujj lâché libéré leen donc cas bi li ko compliqué rek mooy li mu nekk politique mais ala kulli xaal ala kulli xaal euh, ci dundu Sénégal la bokk ci histoire politique Sénégal la bokk euh, léegi nag li am solo mooy que jigéen ñi nañ xam ne am na loi bu leen di protéger bu tudd criminalisation euh, viole et que jigéen boo xam ni dañ ko euh, violé ñaanaluñ ko kenn euh, dégg nga am na droit dem ci yoon euh, wax li ko dal ak ay tegtalam te boobaatam yoon la mu laaj danañ ko def kon pour man kaawu Adji Sarr bi warul tax benn jigéen wax ne léegi kon Sénégal dafa nekk réew moo xam ne mën nañ def jigéen ñu leen neex duñ sañ wax parce que Adji Sarr mës na fee wax nangam Sonko ne ko nangam loolu du dëgg buñ sax jéem dugal loolu ci opinion nit ñi jigéen boo xam ne loolu dal na ko war na mën am ay mbokkam ñu ko dégg nga Euh, am ay avocats yu fi nekk am na association de femmes léeg-léeg ma xuloog ñoom ci yenn masala mais quand même ci principe bu défendre droit jigéen ñi euh, ànd naa ak ñoom donc jigéen même say mbokk buñ la dimbaliwul wala say xar dimbaliwuñ la nga dem ci association yi dem ci euh, organisation yu fi nekk ci affaire droit de l'homme wax leen sa cas ñu jàppale la donc pour man y a pas à faire peur ci côté boobu genre ah su fekkee ni def nañ ko non lieu loolu kon day wane ni léegi réew mi léegi nekk jigéen buñ fi violé ci du ko ñemee wax déedéet loolu loolu du dëgg loolu dëgg kon message la boo xam ne imam moo ko jagleel jigéen ñi surtout ñi nga xam ne kaawu viol mun na leen dab wala ñu koy dund wala instant bi sa ñu nekk ci mais ragal nañoo wax ndax kaawu Adji Sarr ak situation bi nga xam ne moom la dëkk bi jël ak tournure bi mu xa am ba tey ci tournure boobu. bëgg dool juste ci point boobu noonu rek mooy que gis nga kaawu Adji Sarr bi aussi am na benn leçon buñ ci war a jël mooy xam nga lan démontrer viol lu jafe la. kon su ñuy attirer attention jigéen di leen sensibiliser c'est pas pour di leen tiitloo di leen wan ni léegi mën nañ leen siif dara du dara du ci leen siif rawatina bu ñu amee mbooloo euh, wala am tur ak yu noonu loolu dara du ci dëgg dara du ci dëgg loo fi am mbooloo mbooloo loo fi am tur tur nekkal doomu sëriñ bu la neex ah bo bu bu bu ñu indee ay tegtal na yow la dinañ la jàpp wala nga daw génn réew mi waaw kon loolu moom jigéen ñi na seen xel dal Sénégal mënul gi ginnaaw ci loolu. munu nekk te tamit àdduna bi daf ko daf ko dañ faa tollul quoi muy pays musulman yi muy pays chrétien yi muy pays occidentaux ñëpp juboo ci ne dañu war a daan ku ku siif jigéen donc loolu def ko ba pare fi nekk rëcc nii ci àdduna bi même boo rëccee sa dëkk du yomb entrepreneur na la topp kon jigéen ñi na seen xel dal foofu par contre li ma gis mooy que ni démontrer viole moo yombul lu ci bëri conviction juge bi lay doon comme kaawu Adji Sarr bi tamit comme ni ma la ko waxee rek ADN yooyu yëpp noonu ay preuve indirecte la léegi Euh, kon foofu li ma fay wax mooy kon jigéen ñi nañ gën a fagaru ci prévention viol maanaam gën a fagaru ci prévention viol mooy condition yi tax nga loolu war a mën a yomb ci góor ci mu siif la daw ko loo mën a mën a mën a mën a mën d'ailleurs ma ñëwaat encore ci Adji Sarr ci côté boobu c'est pas pour l'accabler mais xoolal yow soo nee man xale bu ndaw laa Sonko moom lii moom laa maa ngi jéggalu sax ci tudd ci turu jàmbur mais comme opinion la te homme public la amul problème eh, yow xale bu xale bu ndaw nga te yow sa bopp nga waxal ni foofu ñi fa doon maase wépp ah ngeen baal ma terme bi dung la ñuy def dung maanaam duñ sol yére xam nga moom wax na ko xale bu ndaw nga attan loolu boo attanee ñu la mat bàyyi wala kii nga leen di maase ñuy futteeku kon xam nga yaa ngi ci condition yoo xam ne quand même de vulnérabilité nit nit la rek donc jël ay lool tamit beneen responsabilité la maanaam maanaam jël ay xale yu jigéen yoom ay 18 ans 20 ans ñuy maase ñu leen mat bàyyi ak ay tonton saay-saay euh, ba pare ñoo xam ni dañuy futteeku bu ñu leen di maase maase bi rek problème la déjà c'est compliqué ñaareel ba ci condition yu mel noonu wéet boobu ak euh, ku futteeku mais quand euh, donc ak yeneen condition yoo xam ni la ci charia doon bañ wéet boo xam ni day tax en un moment donné yen ñaar rek a nekk fenn ah kon loolu laay wax prévention il faut pas tamit jigéen ñi euh, ñu yaakaar ni tam fu leen neex dugg fu leen neex dem te dara duñ ci fekk ça veut pas dire ça veut pas dire que jigéen bu dem wéetoog benn góor rek mérité nañu viol ko parce que ça n'a rien à voir am xel di xam li ñuy wax mais kon loolu laa gën a wax kon prévention lay gën a wax parce que xam nga lu tax parce que démontrer viol yombul indi les éléments matériels yu net yu wane ni kii def ma siif yombul parce que xam nga lu tax problème mu absence de consentement moo jafe moo jafe démontrer à quel moment la ñuy mën a wax ne jigéen bi bëggul woon sëyeeg waa ji et que waa ji daf ko forcer loolu moo yombul kon nag foofu nañ def bu baax jigéen ñi attention ci prévention viol ak moytu conditions yi nga xam ni euh, day tax euh, jigéen euh, mën a exposé wu ci góor mu mën ko mën ko siif. maam c'est important ce point boobu parce que déjà aji Sarr bi ñu waxee ne certificat médical bi da ko fokk confirmer ne elle n'est pas vierge beaucoup de personnes dañuy jàpp ne ku vierge rek war nañ laa mën a violer alors que même ci jëkkër ak jabar sa mun ngaa ñëw porté plainte sa jëkkër parce que dafa la désirer wala dafa la forcer acte boo xam ne yow amoo ci consentement en même temps aussi c'est clair que ku jigéen même sa colin li ngay sol wala aussi ni ngay aborder nit c'est pas une raison boo xam ne it ñu daal di la violer loolu lépp c'est c'est important que xale jigéen ñi xam ko ko aussi. Euh, euh, mooy li ma wax jigéen euh, certificat médical bi dafa wane déchirure de l'hymen xaw ma lan pendant certain temps loolu comme ni ma ko waxee comme affaire ADN mooy loolu yooyu yëpp c'est pas des preuves de viol ou de pas viol voilà nekkatul ko vierge moo xam lu tax nekkatul vierge ak kañ la nekkatul vierge mais cas bi mooy lan mooy est-ce que kii mu tuumaal moom daf koo siifal déet kon. cas bi loolu la comme ni ma ko waxee léegi prostituée sax amoo droit siif ko kon waxutuma mu ñàkk nekk vierge du problème donc cas bi mooy jigéen ñëw ne dañ maa siif nañ seet tegtal yi peu importe kan mooy bàppaam euh, lu gàtt la soloon euh, vierge tout la et cetera donte woon question yëpp c'est parce que boo xoolee ci déclaration yi am na fi benn femme bu génn ne mës na am doom euh, moom mu génn weddi ko après moom tam dafa mel ni xaw ay temps waxoon na dafa ëmb bañ ñuy wax sax voilà bu bu doom ji judd dinañ xam ñu test ADN jékki-jékki waxatuñ loolu te pourtant beneen femme bi wax na ni waxoon na ko ñu dafa ëmb te Sonko ko ëmbal moom laa lay wax ne PV du preuve parce que bu fekkee loolu yëpp mi ngi ci PV ban moo ciy dëgg parole contre parole donc c'est compliqué loolu lenn la euh, bon euh, li nga jot a wax na viol conjugal loolu moom man mandu naa ci tuuti xam naa mën na am aussi euh, jigéen ñi ah comment mais affaire viol conjugal tami il faut faire attention complexe très très Euh, ci islam dafa concept yoo xam ne il foog ñu def ci attention bu baax boo xam ne européens yi ñu ngi koy jëfandikoo te buñ ko dugalee ci suñu biir diine euh, dafay mujjee changer tamit suñu rapport ak loolu xoolal tey jii ba tubaab bi ah, lu ñuy wax léegi partenaire nangootuñu wax jëkkër ak jabar euh, lu ñuy wax léegi concu waaw Euh, voilà euh, nu ñu koy waxtee encore euh, waaw concept yooyu ñu tam dañ ciy def attention moo tax tam viol conjugal nanga mi def attention new ma ne du dëgg mais dama def attention ba xool nu ñu ko caractériser ak lu ñu ci def ci par définition ci lislaam ah bon féministes radicaux par définition ci l'islam jigéen da nga war a nekk disposition sa jëkkër sur le plan sexuel lu dul ngant am ah oui na leer loolu su ngeen bëggee peut-être beneen waxtaan pour <laughs> particulièrement ci ci aspect boobu voilà nga xam ne da koy que da nga xam ne day laaj affaire sexualité conjugale ak ni ma commencé woon ci wax tuuti ñu koy reetaan ak eh, comme Sénégal yi sérieux ñu da ngay wax lu sérieux ñu def ko ay reetaan alors euh, comme nag léegi par définition ba takkusaan ba amee loolu mooy sama yaram disponible na pour sama jëkkër ngeen baal ma waxin bi kon jaamu yàlla sax lay doon su ko defee ni jigéen bi war na su xamee ni jëkkëram soxla na ko mu nangul ko ko même moom bu ci amul envie jaamu yàlla lay doon lu dul nag ngant am ngant mooy nit ki feebar euh, wala daal am dog-dog boo xam ni euh, tax na euh, loolu nar a metti ci moom kooku lenn la ñaare ba aussi mooy que ni justement jigéen bu la góor di labat war nga ko jàng façon boo xam ni di nga xam ni comme di ngeen bokk lal ak yu mel noonu est-ce que kii nit ku dal la est-ce que ku am yërmande la ba nga xam ni que tey jii su ma demoon ba ne damaa xaw sonn ne ko chéri tey dama xaw sonn dina comprendre fekkee benn kàngaado nag nga xam ni xëy na xaalisam rek nga xooloon wala mel noonu nga dugg lu mu bëgg rek mu ne da koy am par force boobaa tam ko xaw rëccu donc question boobu bu complexe la mais dama ci bëggoon dugal tuuti foofu pour après du ñàkk ñu développer ko ci yeneen temps. dinañ ko développer góor bu soxla jabaram <laughs> day ñëw bu génnee dem feneen nga ne dugg na attention bu <laughs> baax na <laughs> dinañ ci ñëwaat bu baax ci deuxième partie bi en résumé rek ba tey ci premier partie bi balaa ñu ci jàll ndaxte gis nañ euh, kaawu euh, Pape Alé mu nekk en détention entamé grève de la faim gis nañ aussi ay plainte yu yi bi ci tegu aussi bokk na ci plante yi nga xam ne teg nañ ko ci Ahmed Suzanne Camara ak euh, ki nga xam ne mooy Bah jaxate ginnaaw bi ñu defee ay sortie ci internet bi yenn yi ci benn télé pour wax euh, ñi nga xam ne ñaari gendarme yi xawoon na rër ba kenn ki sa mujjantelment bi niñ ko gisee neexul ay mbokkam déjà ñu leen di jaale di leen di jaale di leen di ñaanal di ko ñaanal suufu Oyaafcom tey ñaari cas yooyu ci tënk rek lan nga ciy wax. Eh, du ñaari cas yooyu yu bëri nga wax da nga wax affaire Pape Alé wax affaire ñaar ñooñu ñu feeñ seen corps eh, feeñ wax affaire lan eh, plainte jaxate bi yow koy du ñaari cas nga wax yow koy mille cas n kaa nga wax mais li may njëkk a wax mooy déjà ci Pape Alé Niang yal na ko yàlla defal tawfiq mu génn foofu ak jàmm dem ci liggéeyam euh, kaso warul nekk règle kaso exception lay doon du mën a ñàkk nag léeg-léeg parce que tam ku wàcc yoon it ah li bi prévoir ne foofu lañ lay yóbbu foofu lañ la mën a yóbbu suñu suñu neexee tam nañu décider ñu dindi kaso ah mën nañ ko dindi société mën na dund sans kaso boobaa kon tam leneen am alaa kulli xaal mais euh, Pape Alé Niang li may li may njëkk a wax mooy jullit du def grève la faim grève la faim dafa aram euh, boo ci faatoo da nga moom ulema yëpp wax nañ ko donc euh, defal yeneen façon xeex euh, ba mu des xañ sa bopp loo xam ne boo ko xañee sa bopp da ngay faatu te nga tey ko loolu len leen leen mooy li ma wax sànq ne nañ def attention mais jullit am na concept yoo xam ne même pas ni ngay xeexee ni ma waxee léegi viol conjugal grève de la faim tam jógewul ci ñun Bobby Sands temps yooyu est-ce que yéen judd ngeen sax Bobby Sands voilà Bobby Sands si temps wu Margaret Thatcher moo ko defoon ba àddina bi yëpp mu siiw ba mu faatu mu toog xaw cent jour xaw ma ñaata bañ a lekk bañ a naan ñu defal ko ay perfusion mu bañ xaw ma dafa mujj faatu waaw kon ñoom ñoo ñu indil yooyu ñun xamuñ yooyu jullit lu nekk dana ko dal euh, mu delloo ko ci yàlla euh, lànk bañ waaye du du jëfandikoo grève de la faim euh, ñaareel ba rek léegi mooy man tam loolu defoon naa ci poste te ba ma defee poste tam ñaari question rek laa posé yu clair benn bi rek dama ne est-ce que quand même métier journaliste ça veut dire que ni amul réglementation liberté absolue la ñëpp d'accord ne déedéet Euh, amul loo xam ni dafa war a am liberté absolue muy journaliste muy sëriñ muy imaam muy euh, médecin muy leneen kon loolu tam dañ ko nangu donc ma ma fustiger corporatisme boobu léegi daanaka man imam laa fi nekk nii lu ma neex def ci waxin quoi lu ma neex def ci dëkk bi suñu ma jàppee imam yëpp jóg imam la ñuy xeex musuma ci ànd man loolu musuma ci ànd te ci mës a ànd euh, kon tamit laal nañ journaliste journaliste yëpp jóg nañ ko bàyyi ñu laal fi benn médecin sage femme ñëpp jóg attention état de droit du doxee noonu léegi nag ku nekk mën nga dimbale ñi nga bokkal koor mais ci cadre loi bi ni nga ko mën a dimbale wutal ko avocat jàppale ko taxawu njabootam et cetera mais ne loi bu mu appliqué wu ci moom attention loolu menace bu rëy la fi nekk actuellement ci état de droit Sénégal alors euh, léegi ma posé boobu question ma posé deuxième question ma ne léegi li tax ñu jàpp ko est-ce que yoon moo wax ku def loolu ñu jàppale wala déet euh, bëriwuma ñu ma ñu ñu ma tontu ci loolu. war en ah, mais Sénégal toll na foo xam ne waruñu naa ma ne non ci loi bi fi nekk actuellement loolu mu def ku ko def loi daf la jàppalu loolu moo ci sama position léegi nag euh, li jaaduwul mooy la même infraction ci loi bi kenn def ko ñu bàyyi ko keneen def ko ñu jàpp ko loolu jaaduwul euh, kon su ko defee fi mu nekk nii affaire Pape Alé Niang bi man noonu laa ko gisee mais jàpp ma ne vraiment euh, que dañ ko tooñ moom Pape Alé Niang fi mu nekk nii état bee ko jaay doole rek jàpp ko comme li ngi wax dara il n'a affaire yooyu man musuma musu musul dugg ci sama bopp man euh, comme da ngay wax comme nga ne président Macky Sall defu fi dara man ne nan la président nekk 10 ans fi nga ne defu fi dara même bu defee benn tali bu ndaw fii sax def na dara yow kay neel rek doyatuma nangam nangam bon loolu wax la mais kon pour man loolu la léegi nag ah ay avocat ak euh, ñi ànd ak moom nañu dem ak corps bi mu bokk ah, nañu mener seen combat pour que ñu libérer ko mais quand man gëm naa ni état de droit aussi dafa am ay secret ci àddina bi yëpp am na secret défense ak yi secret professionnel am na même médecin bi di tey boo demee fee def consultance amuloo droit nga génn ma ñëw fa daal ne médecin bi léegi ndaw seli nga gis léegi sama kër la jógee sama xarit la lan lan moo ko dal kon secret dafa am secret professionnel secret défense tam am na kon mënu ma comprendre corporatisme tax tey jii seen gars yi yéen ñëpp nii ngeen yéen ñëpp ngeen def benn benn benn benn saj benn say euh, dégg nga ànd ak Pape Alé na fii jaar na fi bon euh, je vous le conseille mais quand même euh, solidarité morale boobu nangu naa ko mais quand même état de droit dafa am nu muy doxee loi dafa metti bu jàpp tamit ne loi bu dalee ci yow sa njaboot wala say xarit wala wala wala sa sëriñ wala sa imam wala sa sa askan wala ñi nga bokkal gox rek nga ne non loi bi duñ ko appliquer su dalee keneen nañ ko appliquer <laughs> loolu loolu xam nga lu muy indi rupture de de de de de légalité euh, du statut de justiciable devant euh, devant la loi loolu bu xasee ba am état droit amatul kon nag euh, noonu la pour man nañ mën a le combat juridique ak seeni avocat bon ala kulli xaal bu fekkee ni li mu def nekk loo xam ne tamit wax dëgg yàlla euh, mën na menacer état bi de façon vraiment très grave et durable et cetera ah boobaa procureur ba ngi mel noonu ah man li ma mën a wax rek mooy mu ñu def ci lu sedd euh, bu ko defee moom tam bu delloo ci liggéeyam mu gën a professionnel mais man euh, dinaa ko conseiller euh, na gën a reste dans les principes professionnels de son travail de journaliste loo tam c'est important mais bul wane quand même ni dafa am ñoo àndal ci wàllu politique bu ko defee nag ngay génne bépp élément boo xam ni mën na leen dooleel ak bépp élément boo xam ni mën na néewal doole beneen camp bi un journaliste professionnel du doxalee noonu kon loolu tam nañ ci nañ ci bàyyi xel. suivre ma yooyu yëpp en détail mais waaw Suzanne xaw ma lu mu wax euh, Bah Diakhaté mais euh, Bah Diakhaté lan la Bah Diakhaté mooy kan. ñii ne état bee leen rey ñii ne ñi ñu an ah, waaw euh, am na ku ñu jàpp tamit ku sunt Kayta waa Sonko xaw ma kooku moom tam dafa ne waa état bi xaw ma dafa yaakaar ne état bi ñoo leen sàkkal pexe ala kulli xaal man xam nga lu ma ciy wax avec laa ciy wax ku nekk wax ci la neex waaye buñ la woowee ci yoon assumel waaw loolu la ah mënuñ tere nit ñi wax état droit la ñu ak liberté d'expression waxal lu neex neel ay malaaka ñoo wàcc rey gendarme bi wala ministre bi ko wax. nañ ko rey mais fexeel ba nekkal gor nag bu buñ la woowee bul ne noonu non waxee ma ko woon noonu wala comprendre ma surtout que nag ci question yu sensible nit ku faatu boo yëkkatee tuuma na la yoon woo bu la yoon woowul ñi nga xam ni ñoom nga tuumaal seen mbokk wala kuñ bokkal parti wala nangam ñoom nañ la woolu ci yoon moo tax man loolu dama ci ànd lu silvisé la gis nga bi ma Wally Seck dafay citation directe euh, dafa am ñu ma ni def na la citation directe man ne këj toog ñu ne ma mais dérange la ma leen non dérange ma lu Sylvie c'est là jàpp ne dama ko tuumaal dara nee na damaa wax ne moom nangam la euh, mu woo ma citation directe su ma wooy ma wuy ko foofu su ma demee ma wax li ma waxoon waxuma ne loolu la mais dama ne dafay def yoo xam ne day jàllale message ñooñu léegi ma ne leen mais li mu def nag lu Sylvie la mooy woo ma ci yoon citation directe c'est un outil euh, citoyen et donc kuñ fi sa mbokk wala sa camarade de wala dara dégg nga euh, wowal ñi ko tuumaal euh, ci yoon wala yow mi ñu tuumaal nga woo leen ci yoon état bi tamit soo ko tuumaalee état bi tamit am na fu muy jaarak yow pour woo la ne la kaay wax ne comme nga ne état bi moo ko def euh, indil say tegtal loolu tam normal na parce que man jàpp ma ne aussi état di nga ko mën a accuser noonu rek surtout ci ay bakkan yu ba pare dem tëddi sa kër dara bañ la cee fekk képp koo xam ne nangu nga ko tey te parce que da ngaa nekk rek ci opposition boo yore pouvoir bi doo ko nangu. solo internet Sénégo TV je rappelle que Imam Kanté lañ dalal tey moom nag écrivain la conférencier la comme ni ma leen ko waxee expert la aussi en environnement et en économie et sociale Imam Kanté dañuy ñëw rek ci deuxième partie dernière partie émission bi déjà dernière partie bi rek dañ koy commencer ak postu déjà imam yi muy def ci internet bi buñ ne postu nag n'importe du n'importe quel poste parce que gis nañ imam day bind évoquer li nga xam ne mooy sujet euh, euh, sur la sexualité mu nekk sujet boo xam ne tey dañ koy wax ci suuf mais du jëm ci kaw balaa ñu dugg ci sexualité dañuy ñëw déjà ci France récemment hier rek gis nañ ki nga xam ne mooy seen président euh, jeunes yi nga xam ne dañu am dix-huit ans ba vingt-cinq ans lii di préservatif dafa gratuite nekkul publicité boo xam ne dañ koy defal waa France mais tey préservatif boobu Sénégal fii doonoon na fi débat ba kenn actuellement mu ngi ci kaso bi muy Cheikh Ahmed Cissé ba ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam génn def li nga xam ne mooy ay excuse à Jamra à l'opinion et à toute personne boo xam ne rek sortie bi nga xam ne Cheikh Ahmed daf ko waxoon ci mbirum préservatif mu daal di leen vexé ñu ngi jéggalu tey euh, buñ ñëwee ci diine ak yenn mots yi nga xam ne c'est pas autorisé ci pencum réew entre guillemets imam lu ciy xalaatam man euh, Bah Diakhaté la yàlla xam na ni mosuma ko suivre dama tëb rek dégg euh, Cheikh am ah Cheikh Ahmed Cissé waaw dama tëb rek dégg euh, ñu naan dafa wax ne xaw ma imaam yi dañu war a suñu sëlmale ñu joxe xaw ma presse verté man loolu lu ma jaaxal la loolu la wax ah. pour lan na lu mu ci wax. ah ah d'accord ndeke loolu moo tax mu wax ko mais wax ba waxu kan na su dëgg la moom waxu kan na su dëgg maanaam euh, euh, bàkkaar moom euh, ci lislaam ni nga ciy sensibiliser ni rek mooy wanka ni lu araam la da lay soril yàlla conséquence su spirituelle ak moralu bàkkaar moo ëpp doole fop affaire ay jigéen bi mën na ci ëmb wala nga am ci ay maladies infectieuses bu fekkoo loolu rek la Euh, kon sax mën na am islam du ko araamal mais leneen lu muy yàq ci sa wàllu diine sa wàllu pas-pas euh, ci ak ci kóolute euh, diggante doomu aadama ak doomu adama ak ci njaboot buy rax yi kenn xamul yooyu moo ëpp doole téeméer yoon ay maladies infectieuses nga xam ni antibiotique trois jours mën na ko faj wala que avorté nga xam ni benn nit la concerné mu dem avorté et cetera et cetera donc mais quand même na wax lu mel noonu ñàkk teggi nag waxu ko na su boo xam ni Euh, lu ci yoonu que imaam yi ñoo war a distribuer préservatif ku mës a gis loolu lu bon imaam du wax nit ki boo koy def defee ko nii subhanallah ah te moom loolu la wane ci biir wax bi loolu tam waxu kan nasu la imaam kay day sensibiliser nit ñi nañ sori njaaloo te mën nañ koo sori kon déjà boo leen gëmloo nii daanaka njaaloo bi mënu leen cee mucc mais am leen préservatif kon da nga wane ni kon sensibilisation diine échoué na Euh, kon li fi des mooy ñu jox nit ñi li ma tuddee woon ci li ma yàgg na plus de vingt ans ma ma ko tuddee woon la gestion technique du péché mooy kii njaaloo léegi ñu jox ko préservatif jigéen ñu jox ko pilule c'est la gestion technique du péché mais waxuñ ko ba tey ni lii mën nga cee dem safara lii mën naa tax yàlla mere la et parce que dañ naan non loolu affaire diine la ah bon ñun kon léegi diine nañ ko ci génne quoi donc euh, kii euh, Cheikh Ahmed Tidiane Cissé boobu nga xamul diine ñàkk na teggin wax bi mu wax waxu kan na su la doy na waar loolu donc maintenant Euh, bu fekkee wax na loolu effectivement ñoom Jamra ak yu mel noonu ay ànd sàmm jikko yi c'est très bien ñu ngi jouer rôle bu am solo ci ku fi wax yu mel noonu nga xam ne day yàq suñuy valeur di yàq njaboot yi di ñameloo xale yi ay caaxaan ñu euh, jaar ak yow ci euh, ci yoon léegi nag comme famille am ñëw nañ ñu excusé wu ah ba tey baax na mais moom ci boppam tam war na excusé wu parce que ay famille am ñoo koy ñaanal njëkk di wax ne ñu ngi présenter seen excuse mais nit ki ci boppam ku wax njaaxum mel noonu ba tudd ci ay jàkk ak ay imam xoola institution jàkk ak institution imam ci l'islam cey nga sañ cee wax teg ci lu mel noonu donc euh, moom ci boppam war na excuser wu ba pare na surtout nag euh, excuser wu ci yàlla euh, tuub ci borom bi subhanahu wa parce que loolu mu wax ni njaaxum bu rëy rëy la bon voilà kulli xaal waaw bu génnee foofu mu nekk dana seetaat bu baax beneen yoon lu muy wax ak fu mu koy teg beneen plainte bi lan la boobu waaw loolu la man dama déggoon wax bi noonu rek mais j'avais même pas compris que sens bi la ko sens bi la ko waxee ñun li ñu bëgg mooy une véritable éducation sexuelle euh, commencé naa def ay vidéo yu ndaw de dix minutes tuddee ko euh, sexualité plaisir et euh, xaw ma lan dans l'islam voilà pour jàngal jeunes yi nu ñu war a toppatoo mbiru sexualité ba nga xam ni day nekk lu responsable lu jaar yoon bu dëppoog l'islam te loolu mën naa nekk jullit yi xam nañ ko xam nañ nuñ koy defee ak nuñ ci yore seen njaboot dafa am yeneen valeur nag yu ñëw en compétition ak sunuy valeur léegi ñoo commencé bëgg a xale yi ak jullit yi yoo xam ni euh, mën naa ñàkk te leen jéem a gëm loo ni su ngeen melul ni léegi ci wàllu sëy ak wàllu plaisir ak yooyu du ngeen ay nit civilisé wu leen euh, amu leen liberté gën a ñemeloo jigéen itam wala leen ni dañ leen tënk ah moom seen yaram liberté disposer de son corps nangam ba nga nekkee ba nga nekkee jullit nga amatul liberté disposer de waaw ba nga nekkee jullit xanaa léegi murtadal bépp jigéen bu gëm loolu na murtad ba pare dane du jullit bu ko defee nga def ci sa yaram la neex mais boo xasee ba tënku ci l'islam léegi la l'islam wax ca loolu ngay def te sexualité am na lu ci l'islam wax soo bañee loolu nag neel man du ma jullit waaw yenn féministes yi foofu laay xeex ak ñoom parce que dama laan non su fekkee ni bugg leen dugal diine ci débat bi kon bàyyi leen jullit jullit yi tranquillement wax li ngeen wax mais su ngeen waxee ñun en tant que imam yi ñun dinañ suñu njaboot ci ne islam lii la ci wax yéen nag ne non non non euh, dañu nekk ci état laïque buñ ci dugal affaire diine subhanallah dañ ci war a dugal diine parce que diine euh, ci valeur yooyu euh, diine rek lañ am ñun pour mën a protéger suñuy suñuy njaboot te tamit bu bu ci imaam yi waxul tamit njaaxum yi gën a bëri nga gis ñu ne waa imaam yi waxuñu na ci kilifa diine yi wax kenn xamul li ñu bëgg donc ce qui fait que loolu moo tax day xeex bi ñuy xeex LGBT yëpp noonu foofu lañ ko dugal parce que suñu leen bàyyeeg seen idéologie yi foofu lañ jëm et d'ailleurs préservatif fii Sénégal sax daanaka accès bi facile na xaw ma ay 100 francs lay jar xaw ma lan ci ci pharmacie yeeg yooyu donc même même jigéen bu dem tey jii euh, ci centre de santé yi dañ lay jox ay pilule te duñ la laaj sa papa sa yaay ak ban at nga am ndax am nga jëkkër wala et cetera fii nii waaw pharmacie tamit xaw ma ay 100 francs lay jar xaw ma euh, je ne sais même pas fan lan la ci loi bi wax exactement mais en tout cas dans la pratique. noonu la maanaam tey jii n'importe quel garçon sénégalais mën na dem ci pharmacie bi léegi jënd préservatif xanaa peut-être bu nekkul euh, peut-être mu tuuti trop maanaam xale peut-être xale bu góor bu am 11 ans 12 ans pharmacien mën na eh, looy doy li yow mais ba 16 ans jëm kaw surtout nag bu fekkee majeur moom fële France xam nga lan lañ dolli liñ dolli rek mooy gratuité bi mais sinon fii Sénégal loolu accès libre la maanaam euh, da ngay dem fay mais fay wi dañ ko subventionné woon ba nga xam ni sax euh, daanaka jarutul dara. pour pilule yeeg bu jigéen ñi tamit la même chose donc euh, donc loolu moo fa nekk mais loolu seen affaire la man li may wax mooy Sénégal euh, France dugal nañ léegi avortement ci seen constitution gratuité nangam léegi foofu tamit am na euh, am na mère porteuse am na accouchement sous X am na nu ñu koy waxatee yeneen ak yu doy waar mais seen réew la ku leen wax léegi bu leen ko def lu ñu lay wax yaa ñu moom. mais lu tax nag ñun suñu réew ñu tam bu ñu bëggee wax ni lii dañ ko fi aaramal suñu loi ñu ñëw di ñu def la leçon ñoom doo leen mës a gis ñu dugal polygamie dañ ko ñaawlu lool te xamu fu ñu ko teg déer ma def lu ma jaaxal fii dañuy am ay maîtresse yëpp nii ban fii waxal président français yu mujj yi nii ñoom ñëpp am nañu maîtresse ñu ay polygame lañ Hollande polygame la woon euh, alors fiir ban fiir xam nañ baax li ñuy def dañuy fantoo nit ñi léegi euh, léegi léegi euh, mais xoolal réewu jullit yi pour man ñoo mën a xeex pays occidentaux yi parce que ñoom rek ñoo dese valeur ci wàllu boobu euh, moo tax day xoolal Indonésie du fan yi ñoom tam def nañ seen constitution relation sexuelle hors mariage interdite moo koy wax sànq sa benn waaye ñoo añandoo bu ñu jullee jëmaa boobu rek ñu toog di waxtaan ma ne ko ak ñoo muus mu ne ma lu tax nga wax ko mu ne ñu wax dafa leer ma mais dugal nañ ci homosexualité te tudduñ ko gis nga bu ñu ne woon léegi euh, c'est interdit l'homosexualité en Indonésie tubaab bi jóg comme commencé bi droit de l'homme nangam mais xoolal dugal nañ ko ci te tudduñ ko dañu ne rek relation sexuelle hors mariage interdite amende nangam nangam nangam góor a góor tam relation sexuelle la jigéen ak ji xam nga dugg na ci <laughs> donc nañ def lu neex États-Unis tam fi mu bu metti la ci affaire ak yeneen euh, Union soviétique tamit dugal nañu mariage hétérosexuel moo nekk ci constitution bi combat bu metti la combat de valeur la ci àdduna bi euh, ñun jullit yi aussi nañ nañu mëne suñu combat ci wàllu boobu Imam sànq ci say kàddu yaa ngi naan euh, di nga commencé rek si euh, quelque temps. vidéo yi mais mais tey texte texte imam li muy bind moom lay def vidéo wala parce que buñ liiree imam texte yi ak quelque mots yi nga xam ne dañ ko ciy gis buñ ñëwee aussi vidéo lan lañ mën a xaar en fait ci contenu. pas forcément xam nga texte yi des fois de plus en plus damay tayal sax di bind texte bu gudd parce que. Euh, nit ñi dañu tayal ba nga xam ne léegi ci liir euh, moo tax léeg nag mu am lu ma jaral ma détaillé ko ba euh, poste bi mujj gudd ba ba gudd tuuti daf koy laaj parce que su tënkoo trop tamit doo génne yenn dimension yi nga ci soxla mais léeg-léeg ma ma ma ma ma dugal rek parce que ci benn combat de valeur laa nekk benn combat d'opinion et cetera donc ay thèse lay défendre donc léeg rek ma dugal rek benn poste bu yem noonu def ko ci benn affiche noonu Euh, génne ko léeg nag ma gis ne jar na gën a détaillé moo tax gis nga bi ma defee post boobu ci sexualité benn post bu ndaw laa ci defoon mu def ngandam coow euh, bon en fait deful polémique deful polémique xam nga polémique mooy woy euh, lu tax mu waxi lii jaaduwul extera cetera mais c'est beaucoup plus lu tax mu laal loo xam ni dafa tabu nangam ak nangam wax na fi loo xam nii bon am na ñeen yi aussi am na keneen koo xam ne nee na dagan na et cetera sexualité orale et cetera Euh, mais en fait indiwuloon polémique ba pare ci semaine yooyu ñaata ñoo abonné sama page am na benn waay bu leen wax ne mu ne imam ñaata post yu am solo ci doxin réew mi la fi wax abonné wu leen page am lii rek ngeen bëgg lii rek sawar kooku <laughs> d'accord naa ci li mu wax mais ci dund doomu aadama la bokk ma ne ko mais tam bàyyi leen ci dund doomu aadama la bokk buñ ci sawaree see katam ci dund doomu aadama la bokk mais kon nañ ko rafetal léegi nag euh, moo tax bi ma defee post boobu nit ñi coow ñi naan di kii du imam Kanté man loolu bett na ma parce que man en général nit ñi pour pourtant dañ may jox profilu un imam moderne waaw nandité donc léegi nag lu tax sama nandité bi warul egg tam ci wàll boobu mais kon nandité bi pour ñoom warul egg foofu moo tax bëgg nit ñi ne est-ce que c'est imam Kanté est-ce que c'est imam Kanté ma ne c'est euh, wax est-ce que est que ñëpp ñu ci bëri mat naa leen bàyyi wala nijaay war naa leen mën a jàngal loolu ñu naan est-ce que c'est imam Kanté ay xale waaw c'est moi war ngeen mën a toog ma waxtaan ci ak yéen ne leen comme ni ma ciy waxee sama njaboot léegi nag su ma ci waxul ak yéen keneen wax ci ak yéen leneen booba temps tam lu ñuy wax ah imaam yi waxuñ dara waxuñ lu ci l'islam wax kenn xamul lu ñu bëgg ak seen contradiction donc léegi euh, ma ma ne léegi naa ci commencé sax def ay vidéo je pense que maa ngi ci ki xale bi ma koy defal France la nekk maa ngi ci épisode cent quatorze ku dem boo xoolee sama chaîne YouTube imam Ahmadou Makhtar Kanté Tibian TV boo ko tàppee imam Ahmadou Makhtar Kane Tidiane TV di nga gis au moins 14 épisodes par 10 minutes rek laa koy def par sexualité kese maa ngi ci 14 épisodes xoola 14 minutes par 10 minutes déjà damay jël dix minutes toog jël benn thème maa ngi ko jëlee déjà ci xale ba ba mu juddoo déjà anomalie yi mën a am sur le plan sexuel te parents yi di ko sàggane ba mu indi yenn problème foofu laa commencé di ñëw fii sexualité sujet tabou la duñ ko waxtaanee ci kër gi doo c'est très rare sa nga gis yaay ak doom ñu toog du dugg ci yenn débat yi. dañ ko war a waxtaanee euh, parents yi ñoo ci war a njëkk nag waxtaan ak seeni doom mais quand il faut reconnaître quand même que euh, waxtaan boobu aussi am na fu muy mën a yem parce que waajur ak doom aussi dun ay morom euh, te loolu ma la wax ni kooku du rek Sénégal ah même ba ci tey tubaab yi wax liberté ak yëpp nii parents du toog. tey ak sa doom bu góor fekkee góor nga papa bi ak sa doom bu góor tey bu am 15 ans dégg nga di ko wax yenn détails yoo xam ni euh, et cetera mais di nga ko responsabiliser sensibiliser ko jigéen tamit noonu euh, mais lu ci bëri même Europe bi ngay gis lu ci bëri seen doom yi ñu ngi koy jàngee ci euh, école éducation sexuelle wala ñu leen ci gynécologue ba ñu wax ak ñoom donc donc yombul. nekkul lu yomb de kon bu ñu foog ne woowee parents sénégalais yi rek ñoo ruus noonu kii yombul parent wax ci directement ak doom moo tax d'ailleurs ñun ñi nekk ay imam ay éducateur euh, aussi ñi nekk ci école bac yooyu justement war di ci wax ñu yore daara ja tam war di ci wax di ci sensibiliser xale yi parce que mooy gën a neex a déglu même xale bi tamit parent suy wax moom sax da ciy am kersa waaw comme buñ jàppee genre mbooja mbaay yi nga xam dañu nekk ci TikTok bi di wax malgré que am na ñoo xam ne dañuy gis ne parfois wax bi tegginewul wala it li ñuy wax c'est trop teggini waxtu bi dafa wax wax bi dafa war a tegg ni teggine jàngale ak teggin dëgg ñoo ànd parce que bu àndul ak teggin rek jàngale amatu fa que pédagogie dafay laaj wax bu rafet euh, terewul nga wax li nga bëgg a wax kon nag léeg-léeg dugal ci beneen wax loolu nombre de vues ngay wut mais pas jàngale donc bu mu vulgaire na tegu ci yoon euh, te nga jàngale li ngay jàngale beneen bi aussi na nga moytu di ci wane sa bopp question yooyu c'est très sensible d'ailleurs fi ma ci toll nii yeneen vidéo yu mën a développer foofu laay jëm nañu def attention bu ñu nax xale yi question sexualité question bu complexe la du lu ñuy régler ci benn fan wala lu ñuy régler ci vécu wu benn nit foofu faire très attention gis nga kooku ngay tudd tey influenceur wala day jàngale moom fa mu jaar ak sexualité moom moo fa jaar il faut pas muy imposer modèle boppam xale yi koy déglu muy góor muy jigéen leen nga gis benn jigéen bu génn bu dëgër bët génn waaw góor ñi de lii gis nga góor boo séqee moom nii ne ban góor la ko séqal kañ la ko séqal attention moom vécu am lay wax ça veut pas dire que jigéen ñëpp foofu la ñuy mës a jaar ak góor góor bi génn itam waaye noo gis nga soxna yi waaw man mës naa am cent gel yoo xam ni nangam naa et cetera ku la wax li muy wax dëgg la premièrement mën naa ma boppam lay ne rek di wane góor la ñaareel ba mooy euh, sexualité day day am ay hauts et dund la c'est pas un long fleuve tranquille lu ñuy jàng la léeg mu jaar yoon léeg mu bañ a jaar yoon moo tax amour daf ko war a lal cofeel moo koy mottali xam ne tey jii comme ni ma ko waxee sànq nga ne ko chéri tey de moom et cetera mën na la a pas de problème écoute on se reprend mais yow vraiment tey mu lu xew et cetera yooyu yëpp ci biir sexualité la bokk donc sexualité du rek dem daanu ci kaw lal bi bëtt matelas bi wadd foofu du loolu ah benn jour maa ngi toog ci benn banque ni ay xale yu góor peut-être ay 18 ans yu mel noonu crise adolescent ñu toog la ma leen dégg ñuy wax ci affaire kon man su ma amee jabar kii naan kii ah ma ne la ilaha illallah ñii xamuñu lu xew mais tolluwaay la rek justement dañ leen war a expliquer donc donc ñooñu foofu laa leen contrer ñenn ñi génn ci euh, kii jàngale wuñu seen bopp la ñuy wane ak nombre de vie bu ko jëmee ñuy wax yu vulgaire wala di wax loo xam ni seen vécu bopp la warul nekk modèle de de comportement ba pare tam dañuy tëb. difficulté yi am ci sexualité te def ci am impuissance day am góor da jékki-jékki mu tële nu boobaa nu ñuy def ndaw si mën na jékki-jékki mu frigide dootul am benn envie boobaa nu ñuy def kon complexité boobu du feeñ léegi dañuy xaw a wan xale yu góor yi rek ne xale jigéen surtout jigéen nag dañuy xaw a wan xale jigéen daanaka jigéen elle est tout le temps disponible au sexe de l'homme ah, góor tam tout le temps rek mi ngi bëgg loolu naan na demeewul noonu demeewul noonu mën nga takk jabar ni une semaine après rek ngeen bëgg a pourtant lal baa nga fa de mais fekk am na yeneen du ci rax ngeen toog nag ngeen dépassé semaine boobu deux semaines après ngeen def 40 ans de mariage lal bi ngeen jox ko place am <laughs> kon loolu la loolu jar na waxtaane te loolu jarul di ci dugal lu vulgaire jarul di ci wane sa bopp jarul tam di ci juumloo xale yi ci loo xam ne da nga koy wax rek pour am 60 euh, mille vues ci ci ci benn ci benn cassette wala di nettali sa expérience personnelle boo xam ni euh, même boo amee kerse ki sa bopp rawatina boo amee njaboot euh, waroo ko waxee noonu. c'était important imam kontaan nañ boo amul rek loo sànni ci dernière partie bi rek ñu bàyyi la nga tàggatoo. ñaan yàlla rek mu defal ñu jàmm ci réew mi politique dafa ànd ak réew sexualité tam dafa ànd ak dundu doomu aadama lu ci nekk nañ ko rafetal. Euh, ànd seeg sunu sago euh, teg ko ci yoon euh, di ko gën a baaxal dugal ci yërmande dégg nga ak sagesse di joyanti di muñalante waaye tam lépp ñu teg ko nag ci àqu yelleef ku nekk ñu nangul ko ko ak te lépp tamit ci dëgg ak bale jumte yi waaw te jàppalante internet Sénégo TV ak Kawtef c'était Imam Kanté ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf